d' accord mais euh, compte TikTok yow yaa ko yor yaa ngi gis message yi critique yeeg yooyu yaa ngi koy lire bu baax. ay maa ngi lire lépp mais ah. du ma ci tontu kenn. ah lu tax doo tontu. mais du ma aw ma jotul naan tontu nit man lu nekk sama kanam laay xool lu ma nekk lu nekk sama ginnaaw. parce que hmm, jàppale woo aada de mais laay. yow ay euh, nga ah, naan jàppale woo aada yow gars yi ay kii daf ñuy bëgg a jaxateeg àdduna bi naan li nii saa ay bàyyi li ngay jéem a damay naan ay mais aada boo ko bëggee jàppale mais aada kon man na tàkk mais wol ñu aada wol ñu aada ñu xool ndax dina la booy dañoo mer eh, ma aada ma xool ndax dina la jël saa yi man doo ma jéem a jaxase ci ay wol ma aada ma xool ndax dina jël yow sa yi nga yow mais man maa la gën a pare fop barki borom daaru sikoori <laughs> billaahi kii mooy aada ngay naan mooy aada xool ne nañu jël billaahi <laughs> waaw mën na mën na nekk dafa jàpp tamit rek ah yooyu yëpp mën na nekk saaj te moom moom moo téléphone xëy na daa jàpp rek loolu kese la non du ma incité incité sama appel dina ma woo téléphone saay ma lan laay <laughs> xanaa doo xool <laughs> doo xool non ma xaw ma loolu noonu de gem maa xam moom eh, ay doo xool moom foofu ngeen daw laaxu non daw laaxu lan ah. saa yi déggoo lu ma la wax du ñu cub suñu drapeau ñun ay doom lu du ñu cub suñu drapeau ay doomu faat lañ lan moo tax ngeen toj oto Zarko moom moom bu fekkee moom nit la waru fi sax yow yaa ngi bëreeg aada faat ah génne sa benn loxo di def fokk yow Zarko nii nga ñu def ba pare nga bëgg ñëw fii nii Zarko police policier yi ñoo ñoo gaaw a ñëw rek mais barki borom daaru si góori kon du génn du génn faas saay saay eh, ñun ay do ay eh, saay ñun ay doom loolu suñu yoon nekku ci na dund ak moom loolu moo xam. yéen métti ngeen de. ay booy faat lañu dëkk faat du crime mosuñu def crime ñun ay booy faat lañu saay. tos dara du xew. <laughs> gemb ñoo ko moom. dara dina xew ndax aada fi mu ne nii yëngal la du xew. bilaay walaay tàllaay. ndeysaan dégg li gars yi di wax yaa ngi dégg gars dañoo met yaa ngi dégg li dëgg dara sax même lu cadre dëgg la matirul dafa immature. alba man sax man du ma ko def man yu muy def sax man xalaatuma di ko def. jokkoo mbir yi pour man dafa war a mën a toog Fass lan moo jar par exemple mu bàyyi Fass dem parcelle. looloo ñeem looloo yéem ñeem ñëpp nag. Mhm. ñun loolu daf ñu jaaxal. le geste boobu noonu def jaaxal nañu trop. Mhm. parce que alxuraanul karim dañu jël benn jegeñaaleem euh, ñu ne aada xale bi da ko jekku mystiquement est-ce que yow bokk nga ci ñuy partagé avis boobu. waaw rumeur boobu tamit dal na ma. am na ko ñuy wax sàkket. Mhm. wax jooju wax na ma ko quoi. waaw est-ce gëm nga loolu. Ah, aada lu muy def nii daa mel ne àndul ak sogom nag de dëgg neex yàlla. moom nii melul musul mel nii. aada musul mel nii. billaay wallaay. Mm. musul mel nii barki Serigne Bamba affaire bi jaaxal nañu trop. Mm. barki alxuraan. billaahi. loolu noonu tamit. moom bëgg-bëggam la ko quoi mais loolu sportif moom dëgg na yàlla du def loolu ay takk ñaari jabar moom du yoon quoi mm-hmm. du yoon. roi des arènes. non lii moom jarul roi des arènes waaye baal. waaw mais eh, waaye pour pour lan jarul roi des arènes. mais parce que parce que coacham bi coacham bi déglul coacham bi nee na. aada du entraîné te da ciy boole neex mm. day suus. la mooy suuf la mooy loolu. xamoo luy suuf. dama xam luy suuf mais eh, saa yi man xaw ma luy suuf. da ngay la aada wooyee parce que yow seetaan naa sa sortie bi yow sortie bi nga. mais yow rek nga may naan aada woo ma mënaate. mais ni nga aada mënaate aada pour. mais ni ma aada pour lan mooy mënaate parce que yow li nga ma ma laaj laa lay tontu nii rek saa yi. yow xamoo luy suus sa diggante xaw suus xaw nga bëgg ma jaxase ak àdduna yi ma jaxase ak Ndakaaru ah? xaw ma suus yow saa yow da ma bëgg jaxase xanaa saa day ruux de eh, barki borom daaru si góor yi man doomu faat man duma mos a ruux mais man xaw ma luy suus aada man xaw ma eh, man saay man xaw ma luy suus barki Sëriñ Bamba xaw ma luy suus billaay wallaay day daaju daajur ay wax la nii rek ay daaj la mooy daaj xam na laa xam jël marto ne keng keng man loolu laa xam loolooy daaj saay woowu woowu milieu la waru ko takk woowu bi woowu milieu la waru ko takk man loolu ma ciy wax mais barki am na doom te ku ma a doom dégg naa ci liiwu Ibrahima yooyu la nekk awkat awkat la non barki Serigne Bamba mais loolu warul tax tamit ngeen di dénigrer xale bi xale bi euh, gis na euh, gis na gis na aada bëgg ko aada gis ko bëgg ko mu tax ko warul tax yéen ngeen di dénigrer booy bi naan ay booy milieu la ay am na doom ak affaire yooyu eh saa ay woo bi woo milieu la affaire de milieu loolu lay dund woo bi loolu lay dund ñun gëmuñu yooyu noonu saay hmm. lan ngeen gëm ñun xam ne la gëm. ku toog ci pooju ndayam. Hmm. aada ñun loolu la gëm. gëmuñu ay woo milieu. parce que Serigne Ba mais nee na aada booy faas la mais du nante loolu da nga koy d'accord. aada nante la. mais nante dina def lii. mais nante day juum saa yi nante su juumee rek day daanu. non non nante du juum nante du juum. nante du juum aada baa ngaa la ngaa ko bu mag la nga naan nante doo ñu may suñu jàmm yow. laay doo wax li am yow moo gën. yow gaan yow bu ma jëma. waaw jëmal non non jaxasewu ma la ak aara laay ñu gënoon ñu bëgg aara faas mais da ngay wax am moo gën. yow lan moo la metti réellement ci booy bi. ngay booy bi kay lu ñu metti moom bëri na uh-huh. yooyu mënuñu mënuñu mënuñu ko wax daal mais daal lu ñu metti moom daal bëri na trop barke yaa boobi un amul yëg-yëg si nit boobi da lay romb mel ni ku la xamul wala day xaar yow nga koy nuyu di jéem a dund dund succès Fass mënoo fi ñoo di succès ñun fii lañ dëkk ci nature yaa ngi fil Ada Fass noonu la mos a boo waxee ñee ne complexe la wala genre affaire bi du yooyu ñoo ko gën a complexe téeméeri nu yoon mais dañ lay romb naan dañuy jéem a assoné ñu genre ñun ñun la moroon ñu koy topp mooy drapeau bu mu sol mais Ada Fass ñun di jëntiwuñu ko ñu ko sax ñun ñun sama premier combat yóbbu naa fi année ko kon du qualifié ñun nan ma fi li njaa laaj ko moom kanamam ñu yàq année jàmbur Ada Fass jóg ko xamu ci dara te tooguma fenn di ko fa wax xam nga ndax lan ñu dañ kaa bëgg moo tax yooyu noonu ndax añ demee stade am am ay business yu ñuy dal ci ci benn nit comme dana yëgu la bu bu yàggee xam da ngay toog nga ko yoon baa ngi noonu. mais nee nañ Ada Fass kenn du xam fu muy fanaan kenn du xam lu muy def entraînement yi respecté wu ko loolu yéen ñu dëkk ak moom est-ce que dëgg la. saay bis nga tey Ada Fass dina respecté entraînement yi. ah kon respecté wu ko woon dina déglu ma dina dina respecté entraînement dina xam fu muy fanaan instant bi nii pare instant bi nii bañatuñ si dara Ada day mën a nekk nit. ñu ànd ak moom munu ko ku nekk jël yoonam barki Seydina moo xam parce que dañuy son si moom quoi billaay wallaay mais da ngeen ko bàyyi définitivement wala da a mer non mer nañ moom mais instant yii man moom ah, commencé naa jël sama yoonu bopp nag quoi ah. xaw ma nag ba si kanam man moom commencé naa jël sama yoonu bopp waaw xaw ma du ma topp nit koo xam ne moom yëgul nit ñi quoi wax dëgg fa ne yàlla moom sinon ma topp ko samay waajur sama moo gën mais est-ce que est waxtaan jotul ngeen recadré ko parce que aada comme ni nga wax roi des arènes ngeen bëgg dafa tax am na wàll ci làmb ji sincèrement ndax bu jugee xale yi topp ko ñëpp a ko bëgg bu touché mu neex bu bëree mu neex mais est-ce que jotul tamit mu defaraat toogaayam defaraat. loolu palaa la force la. nan lay nekkee par la force yow yaa ngi nii mënoo xamoo fu aada nekk. waaw waaw dëgg la waaw dëgg xaw ma fu mu nekk. waaw xaw ma fu mu nekk rek saay aada fu mu nekk xaw ma ko. mais loolu palaa la force la. Ah.